di amaat mbégte ak kontante di àndaat ak yéen ci li nga xamante ne ni yàgg nañoo boole di àndaat ak yéen mbokk yi ci làmb tey ñi ngi ci géejawaay dellusiwaat nañu fi ginnaaw bi nga xamante ne ni Jamaïcain moo ñu fi indi woon ci combat bu mag bi nga xam doxo tëggoon na ko mu dox ci diggante Laye Pythagore ak ki nga xamante ni mooy ñax jëriñu tey delsiwaat nañu fi li ñu fi tax a ñëw ngéwél gi moo woote ngéwél gi production moor Mbaye moo woote komba bu mag combat boo xamante ne ni ñaari ndaanaan ñoo koy bëre ay xale ñoo koy bëre muy alliance biram ak bulldozer waaye balaa maa tàmbali mooy nuyu bu baax a baax gars yi nekk ci salle bi yëpp maa leen di siyaare soxna na bu maa lay siyaare sama mbokk géwél yi bëggee naa leen di nuyu le promoteur Mor mbaay di nuyu Sam mi nga xamante mi ngi ci ginnaaw Matar Ndiaye waaye suma pap pap mbaay mi ngi fi toog ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko siyaare champion yi fi nekk Alioune Seye fils de Balla maa ngi leen di bëggee bu baax a baax Ama Dia bokkoo ci nuyoo bi yow bokkoo ci ñi may mbokk yi bis bi nga xamante ne nii moom la Mor Mbaye wootee mooy bis bi nga xam mooy bisu le 20 avril 2019 mu war a am ci stadium Iba Mar Diop mu doon combat boo xamante ne nii ñi ngi ko tuddee ki nga xamante mooy Omar Sow Omar Sow di conseil spécial du président de la République pour les affaires de la jeunesse ki ñu tuddee yëf yi ki ñu tuddee combat bi mbokk yi nit la koo xamante ni day xalaatal day jàppale président de la République ci xalaat ci lu jëm ci wàllu ndaw ñi kon yaakaar naa ni bes bobu bis la bo xamanteni besu ndaw ñi la alliance beureum bulldozer ñom ñaar ñep kenn doot lañu présenter ci lamb ñom ñaar ñep ay ndanan lañ ci lamb waye Mor Mbaye yamul fofu dafa indi Iba mécanicien muy dajé ak camion isa bu keur Mbay Fall difa dajé ak Boy Malika Dofu jazz mom ak Aline gayne Omar Fall Boy Sadio jor numéro 2 momak ak Hercule pap Boy nya difa dajé ak Pablo ah go baay Fall difa daje ak Mool 1 Lat Dior di fa daje ak Malick numéro 2 ki nga xamante ne mooy kilo di fa daje ak Fodé yaakaar naa ni Issa Kër mbay Fall moom ak Boy Malika la moom ak Boy Malika ñoom ñaar ñooy daje ah Dofu Diaz <laughs> moom ak Aliou Gaynde loolu yaakaar naa ni du doon combat boo xamante combat bu yomb la waaye mbokk yi loolu mooy li nga xamante mooy plateau bi Mor mbaay proposé bi sur le 20. en direct incha allah sur la 2STV balaa ñuy tàmbali rek ñu def suñu baax féete kaw ku bëgg sëriñ Modou Kara Mbàkke noonu lay nee ba tey mbaa nga bëgg taay sëriñ Mansour ku bëgg sëriñ Fallou Samba Yande Ngan Njaay Ama Ja mbër mi bàyyi yaay ana kanji kaay mbër mi bàyyi ba signature de contrat bi leen jubali directement damay wo kilo ak boy Fodé géwél yóbbu len Fodé bu Kër Sambakan yow Modou mbay xam nga bu baax sét ak nga bu sama dëkk. Kër Sambakan men. fi ma waaw. fofu nga dëkk. man fa la dëkk. kilo. man ragaluma yoole bobu noonu ki kilo la la. ki kilo kilo mburu la kilo mburu lan kay wax waaw ya ma gëna xam kii ragaluma yoole bobu non bu taxawee ma jàngal ko bëre bu xeexee ma duma ko daan ko. Ah, foo ko teg maa ko wax loolu. parce que Seydina Mohamed. Seydina Mohamed laa la waatal kay. ko daan ko. kii du bëre du xeex bu suur ba du bëre xeex dama koy duma dama koy daan maa ko mën maa ko ëpp doole xale bu ndaw laa 97 laa jur barke Seydina Mohamed. DJ wàññil ma son bi tuuti waaye DJ wàññil son bi tuuti Modou mbay foofu magel amu fa arbitre moo tee ma duma ko daan ko bu neexee sunu boroom incha allah bi arbit wàcce loxo bi ma duma ko daan ko jàngal ko bëre laay def bu neexee sunu boroom kii bu suur baa asib laa koy indil asib ci biir mburu bi laa koy diw kii du bandi asib boo ko dugal defee ci mburu bi ndax du seey bu ma paree dama koy sànni kon nga ko lekk Modou mbay asib boo ko defee ci mburu doo ko jariñoo kii mu taxaw ma duma ko du mooy métti jàngal ko bëre. kon du kon kon du yàgg quoi. yàgg bu yàggee ci moom la. na taxaw dëggal boppam. mosuma bëre combat bu yàgg mosuma koo bëre. yow seetaan si nga ma sama dëkk Kër Samba man contre Fay Biram. waaw lu wér. waaw dëgg la. eh booy Kër Samba Kër Ndiaye laa yamale. <laughs> ak Kër Moussa moo tax ma duma ko daan ko. déggoo ma de Kër Samba Kër Mari laa yamale man gëw ma loolu. ragaluma yoole boobu noonu. di sant waa Géejawaay bu baax nag. waaw ak dawal ko sareer yëpp waa Kajoor tund Njaay Mbijeen maa leen woo si combat na gaa yëpp ñëw jàpp si waa waaye wàqi naa lim saar marsa Njaare marsa bees waa écri mor maa ngi sant gaa yëpp ak gaa ma àndal ñoom Seex Kayma di sant gaa yi ñoom Isa ñoom Maga Lële sant sama gaa yi baax waa marsa Njaaram nañ ñëw jàppale seen doom seen rak seen xarit ah, seen àndandoo gan gi ñëw ma defal ko lu xong cur loo xamante ne bu gisee du ko fekkee booy wooteel waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo waa Kër Samba Kane gépp di sant di woo waa Njuuf waa Kër Samba waat Mbarit waa fépp maa ngi leen di woo di sant bu baax Mor Mbaye sama grand frère la maa ngi sant waa Kër Samba Kane di sant Baye sama grand moom sama Malick de waaw dafa taw mais garaawul. lu muy daw dañoo bis ba rek am naa daa tiit. xam naa daa tiit. daa mais maa woo waa Géejawaay waa Mar Sam ñoom ñëpp. waa Bagdad waa Gunaas ñoom ñëpp. ay eh, kilo yaa ngi Fodé eh ñaar signature ngeen ba pare may leen ñu. di woo Daouda Seck sama mag sama lépp di ko woo di woo a Fall di ko woo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi comme sa waay ñëwul moom mënuñoo wax wax ju bëri. Ah. mais maa ngi sant sama gars yi may àndal yëpp ñoom ñëpp ay mbës bàyyi seen yite ñëw ndax man mii mais maa leen di sant ñoom ñëpp waa wax ji foofu laa koy yemale. kontaan ci yow. waaw maa leen gën a kontaan foofu. géwél yóbbuwaat ko waaw waaw. yow leer ma la Zé Baye Fall Baye yi jigéen ba jaama gën si Kamba Fora. waaw Zé Baye Fall Baye Fallu Baye gën si Kamba Fora. Tëlimaam Diarra Lamsar. Ah. waaw maa lay siyaare. maa lay delloo ziar bu baax Mor Mbaye. saa yi ñëwul de mool mool mool ñëwul de. dafa ragal loolu. mais bu ñëwul tey. waaw samedi day ñëw. lu mu siy ragal. ah moo kuuri tiitaluñ ko. <laughs> xamna ku courrier wara war mo tax mu tapet lol dama bañ ñu jow ko quoi dama lay bàyyi rek nga woote ndax fi luñ ko soog jëw ko mais duma ko jow mon may ban Baye Fall la duma jow Baye Fall du jow yeah dafa leer aca wooteel wa di wo jàmm gën ci kambaaw fora dawal kat sareti yi jaakati yàpp yi wa tëlimaam jaara wa jàmm gën jaago bar wa guuy ga baama kenn wa caaro yi képp ku na <laughs> maa lay woo si combat tapatu ñu tàppatuñu borom sareet yi képp ku na ak jaakatu ngooñi baawuñ kenn bërëb bi nag balaa moo doon gën a neex mu ñëw càng waaw ma tegal ko lu bëri doole mais bu ñëwul tey samedi dafay ñëw te bu ñëwee day dégg ki xiir bi da koy dalle borom sareet yi ragaluñ te mosuñu tàppee loolu waaw faxas joxos rek nu mu demee rek tàmpi képp ku naan jaajëf bismillah mina seytaan rajim bismillah doo njuug doo bàkku affaire yoon non soxlaw comme bi ñëwul soxlawul ñuy bousé yow yaay kan man Pablo waaw gannaaw ma sante yàlla julli si yonante bi di sant sumay ñaari waajur bu baax a baax di nuyu sama papa suma yaay di nuyu sama mag Alioune Seye 2 lii yombul quoi xam nga sarak di signature nga ñëw toog assisté ko loolu noonu dafa rëy billaay walaay mais nag adversaire bi xaw ma lu ko téye bu dee maa ngi koy ñaanal daal yàlla na ko jaamu téye bu mu ñëw ñu suñu contrat si jàmm may woo ku ci mel ni Tamirey xam nga ñoom Dem Biram ñoom Jibi Samb Laay Soumaré ak sama mag Moustapha di woo ma Diop maire Grand Yoff ay ñoom Cheikh Bakhoum ak Badara Kebe waaw di woo sama waa ko ñëpp di nuyu ñëpp di xajal ñeneen di wax ñaanal adversaire bi daal bu dee xaw ma lu ko téye mais yàlla na ko jàmm téye ba samedi ñu remplir suñu contrat di wax Sam bu sant yàlla waaw. yii cool. waaw waaw. Uh-huh. tey loo añee. man <laughs> ceebu jën laa añee. waaw. bu am bëgg a am na lépp. na lépp waaw. Uh. waaw. auzu billahi mina seytaan rajim ginnaaw bi ma sant yàlla bu baax julli Seydina Mohamed sant sama ñaari waajur di sant sama waa waa koñ bu baax di nuyu sama waa igri di nuyu ci mel ne ñoom prési paate di nuyu zalooli di sama gaay maanal yëpp waaw maa ngi bëggee ñëpp waaw saa yi de waaw di ko ñaanal yàlla may ko jàmm rek ma jàmm ba jour xaw ma nag la moo ko téye yàlla na ko jàmm di ñaanal saako yor sama mag di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm saako yor ku ne xam nga ko mm. ku ne xam na saako yor waaw am na lu mu fi def nag waaw am na lu des mais li dess man mi rakam inshallah allah li dess ci kéré ya, man ma kay agal loo len bok ñu bok nday ak bay waaw du ko ñaan yalla dafal ko jamm nak amin amin waaw. yow ndax takki gi ci jor ngi ci yow saka jor da doy war de say lepp a ci man lepp lepp lepp a ci man waaw. Hmm? lepp ci man waaw. mën nga bëre ni saka jor saka jor mako dakh bëre. kon kon wooteel ba la ba bis ba dinañu leer. waaw di woo wa Géejawaay. fi ma jóge waa Géejawaay maa leen woo waa marché Ndiarème bàyyiwuma kenn dawakat seeret waa marché Xelkom waa Gàddaay bàyyiwuma kenn xam nga di woo waa Kajoor waa Touba waa Bawol xam nga kulub bàyyiwuma kenn maa ngi woo ñëpp di woo Jéy Jéy promoteur maa ngi koy woo mu jàpp ci combat bi combat maa ngi woo ñëpp di bëggee sama gars yi ma àndal bàyyiwuma kenn waaw combat moo <laughs> sama combat moo fi dàq. ndax maa gën a nekk xale gën a sadik. déggoo ma de. li ma séq a bari. deretu faas mooy daw fii. tarkindaa yi ñëw darma. loolu weex na de. benn defet la am infra rouge kese moo ma daan te ko kum daan champion nga. déggoo ma de te dama ko duma. bu baax man tarkindaa laa deretu faas mooy daw fii faasuwaa laa ragaluma loolu onze billah bismillah inna waliyallah waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli ci yonente bi di sant suñu ñaari waajur di sant assistance bi fi teew ñëpp waa di ziar rek ñi ñu fi fekk rawatina sunu magu mbër ku mel ni Alioune Seye 2 ñoo ngi koy ziar di ko jox ziar bi mu ziaral ñu waa Géejawaay yëpp di ziar suñuy kët ku mel ni Lamine Mbës Père Balla amuñu fayam bébé Balla it ñoo ngi koy ziar di bëggee ñu fi nekk ñëpp. awaar dégg nga li wax. damay nuyoo ba pare mu soog a eggali. salaamaaleykum. waaw yaa ngi ko dàq tey. yow xam nga ma ma connais très bien. yeah you speak me. yeah wala boog. Ah. waaw gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonent bi. di sant sama juróom-ñaari waajur yëpp. bàyyiwuma kenn sama yaay Ngone Fall kër Ngone Fall am na dëxin am na maaf. naa la dëxin maa fa lay papa Ibrahima Diop xam nga ma bu baax. man la sa fils damaa yalwaan si sa kër ba taaye. daara bay may ñaan laa doon jàngee yëmbal. fii nga dëkk tout pere damaa yalwaan si sa kër ba taaye papa Ibrahima Diop ci ma connais très bien. te góob ma de. waa dara comme daa yalwaani yalwaan si ba taaye ma koy jox. bu bis baa na fexe la ma ko dénkoon mu delloo ma ko rek. damay feddali kóllëre damay ñëw daal la du yàgg. bu neexee suñu borom ku dàq bëre yàlla na la yàlla may ndam. maa dàq bëre. maa gën a compétir maa dàq bëre. foo ko teg. maa dàq bëre maa gën a compétir boo demee Diofior Fimela Ndangaan Dionewar Niodior Moundé Fayla Jifeer nga laajte dinañ la wax kan mooy booy Sadio man bëre dóor bi xamaguñ ma ci kanam lañ may comprendre déggoo ma de. bu bis baa maay ki lay wone incha allah. non papa doo wone mosoo wone ci àdduna ragalal loolu waaye. déggoo ma de bu bis baa. déggoo ma ku dàq bëree yàlla na la yàlla may ndam. moom na moom na nangu loolu. papa papa maa dàq bëre kon maay am ndam. bu ne ko. ku dàq bëree yàlla na la yàlla may ndam. incha allah kon papa Ibrahima Diop maay am ndam. wootee booy woote leen. déggoo ma <laughs> waaw su ko defee ñu santaat bu baax di woo waa Géejawaay yëpp rawatina bëgg faalu adjoint maire ñoo ngi koy woo combat mu jàpp ci bu baax di woo ku mel ni Mansour salle musculation di woo Ñang Fall Seex Fall mu mu euh, Modou Gueye waa étage ma jale yëpp ñu jàpp ci làmb ji di woo Seex Seex Top sama téer sama xarit di ko wax mu jàpp ci Abdou mbay moom duñ ko wax dara lu ko neex na def ndax li ñu boole xam na ko di woo waa Géejawaay yëpp di leen wax ni nañ ci jàpp combat bi daal soxla nañ ko soxla nañ ko torop waaw. man maa war a sant maa war a gërëm maa war a woote bul sant bul gërëm. maa ngi woo waa Fass waaw télé maa ngi woo waa Fass Mbao Fass booy booy Daaru Salaam dëy Baye Fall yi buntu boutique ba cité Aline Sow di woo Pa Jara di woo Goro Yata yi waa kër Yata Saay Mamadou Yata Saay doo koy dégg waali di ko way day jàpp si combat yi billaay taalaay sama garaa góor gi Jóob waa Joofi yor sama yaay Awa Binta maa Mayees ñoom maam naar ma leen waa Sing Boyaar Cheikh Seck di woo waa sama waa koñ xam nga dawalkatu scooter yi. ndur ndur ndur foo ko dégg xamal ne man maay ñëw man dof yi déggoo ma de maa gën a ne xale gën a sadik di nuyu nag samay mag samay grand frère jiital ko ci sama taawu papa muy sama taawu papa Ibra sa ah, ah, nu mu sax Pape Sarr sama taawu papa moom laa teg loxo bi su nuyoom na ma ko jàllaleel ci famille Sareen yëpp. di sante sama nday di gërëm sama baay di nuyu sponsor bi di wax sponsor yi ne leen nañ ñëw ci lamb ji di nuyu waa station ba ñoom Aïda ñoom Grand malik waa Zenith énergie ñëw leen dugg si lamb ji ngeen jàppale xale yi da ngeen a ñëw pour jàppale ñu waa Zenith énergie ñëw leen ngeen dugg si lamb ji ngeen jàppale jeunes yi parce que ñun dañuy ñàkk di daan suñu doole pour wut lu ñu dimbalee suñu waajur yi di nuyu champion yi fi toog Alioune Seye di nuyu xama grand yi nii on me connaît très bien. géwél yóbbu leen. maanaam Modou xaaral maanaam maa ngi jégalu xel day fatu ñu ziar promoteur yi fi nekk yëpp rawatina Mor Mbaye ñoo koy ziaraat bu baax moom xam na li ñuy wax xam na di woowaat waa Casamance képp kuy doomu soose wala ngay doomu balanta combat bi dañ koo soxla te bëgg nañ ko incha allah Aliou Gaynde Aliou Gaynde dof jaas lu muy def nii. day def yëfu dofam man maa ngi ci formation fuul. stagiaire ah. laay def asalaamaaleykum. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant sama grand moor Sam parce que boo mbapat ba arène moor moo mu tëgg. premier combat bu mu njëkk a tëgg maa ko bëre. ñoo ngi koy sant bu baax. way way damay wax auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maay sant yàlla di julli si yonante bi di sant sama ñaari waajur yi nga xam ni ñoo ma sukk jur sonn si man di gërëm Ama bu baax a baax billaahi saa su ma taxawee jaaxle day def teew di gërëm di woo gërëm alin Seye 2 mi nga xam ni mooy sama maam si bëre Alioune Seye junior nekk sama papa si bëre booy pir ma la toog nekk sama doomu nday si bëre ñu yeewu fajar di liggéey lu metti moon bay xam nga ma koy xamal mënul daan si lal bi bëgg daan si làmbu ja daan si lal bi du daan teel a kilifa di bu baax su ma la jàppee nga xam lépp dëgg la lu ma koy xamal xale laa benn quatre-vingt-quinze la bàyyi. moon xam nga ma bu baax la de guerre Papa Sow maa bëre dix-neuf waaw bi ngay yuuxu kii li ma koy xamal xamal lan laa koy xamal barki alxuraan man ak ñoom ay fils de Balla Alioune Seye Junior dañuy ànd di yéeg si dini billaahi wallaahi watallaahi moon mbay ibil say bët di xool ñiy toog grand combat sax xooluma leen billaahi fi ma teg sama bët sama yaay laa bëgg a dimbali te gëm naa ni dama koy dimbali kii duma ma suñ gedde clôture nga jommi non billaahi wallaahi da ngay ay din man maa ngi ci kancaara bi buñ geddee kulus yi nga jombi mu gis lu doy waar ma la xamoon lool xale la dama mëna bëri pire dama doon sumé ko rek nga gis lu doy waar ki bu né xale la man lan la gaay wax le ki bu né xale la man lan la moom mu ngeen ñaari doom ki dama kaa xam ñëk ki sama maam la ci bëré duma moromam xam la la lay wax billahi ku dàq bëre man ak mom yàlla ko yàlla may na xama la moy bëré amin amin amin amin kii day soobu te sama tànk laa koy tegal bu ko jëlee ma juutal ko barki alxuraan barki alxuraan bu laamu jaa ku arrière yàlla lañ yàlla nañ ko daan ku daw rek yàlla lañ ko daan bu arbitre sifflé barki alxuraan karim boo déglee sa bopp top laa lay yóbbu moon mbay kon jaratul wax ju bari kon kay coolul waa kon woote leen man du ma reculer pas te bu bu bu taxawee ma du ma ko daan ko su reculer ma fekk ko ba fu mu taxaw escanté ko juutal ko joxaat ko jabaram muy daanu. ak leer dégg nañ la de. li ma nekk dama kaa gëm. moo waral ma teel a takk soxna. teel a ñemee responsabilité. di gérer sama gàll ni mu ko waree. bu heure dem entraînement jotee damay dem entraîné ji te buñ géddee cluse bi nga xam ne damay liggéey. man su ma jëlu roi di arène barki alxuraan lu ma gëm laa la yow su ma jëlu roi arène nationale bële. fa laay nekkee roi te lu ma gëm laa lay wax ibil say bën ngay xool. kii daa daanu ba tas. taman musuma laal suuf. moo a ngi nii nay mooy seede. mbaparat ba aren musul gis sama ginnaaw fu mu laalee suuf su ma la jàppee rek lamb ji jeex. kon na préparé faxusu te uddi njàmpeeg saabu te fas yéene sangu. xam nañ seen bopp waa ba kon bu dee am ngay mbayaar. ne leen nañ leen fekk ci kaw. loolu rek laa wax man. ñooñu rek ngay woo ñooñu rek laa woo. non non jeex na tàkk. Eh, moom mbayaari lay woo. man xam nga ñan laay woo. kàkk yi waa faxas mu lay maas. ñooñu laay woo kàkk baas yi yëmbal kàcca baas firi life taliba kàkk baas yi kii sibul sax mbayaari lay wax mbayaari dinañ leen wulli juutal leen ma wulli ko juutal koy. tegaat ko si laal ba aja géwél ñu dem sant yàlla bu baax julli sang-sang yi Seydina Mohamed gërëm suñu ñaari way jóor di sant assistance bi fi teew bépp di commencé ci sama xarit Sam Mor mbaay en père Alioune Seye mbër yëpp ñoom fils de Balla sama xarit yéen bu diis ak gànna maa ngi ziare ñëpp di ziare ñuy seetaan à travers la 2STV Lutte TV ak Guédiawaye info di wax ne amati na solo laay wax parce que bi gars yi commencé ba tey chaque jour am na solo Mor Mbaye tey def lu rëy muy journée des espoirs boole Bulldozer ak Alliance Birame di ay mbër yoo xam ne mbër yu yaru lañ rendez-vous bi nag kon incha allahu rabi le 20 avril lay doon fële ca stadium Iba Mar Diop di wax ne mbër yi tamit dañ leen di gën a ñaax rek ci li ngeen nekk su ngeen bëggee sponsor yi ñëw jàpp ci bis bi nañuy wane discipline di wane yar di wane teey parce que lii ñun ñëpp ñoo ko bokk muy ñun ñii di tëgg làmb yi ay xale lañ yéen ñii di bëri ay xale ngeen donc kon affaire bi ñoo ko bokk soow mi ñoo ko bokk nañ ko rafetal duggee ko di wax ne yàlla yàlla def jàmm yàlla yàlla boole ñëpp jàmm làmb ji ñun ñoo ci nekk ñun ñoo ci nekk ci ay xale relève bi suñu loxo la nekk suñu ko gëmee ñun xale yi wax nag li ci neex mooy nga wax ba wax li nga gëm yow mi ne léegi arène national da nga fay dooni roi des arènes yàlla na ci yàlla jàppale bépp mbër ak yow ak ñeneen ak ñeneen di wax na ñun mbër yi ñooy suñuy xarit ndax ñun ak mbër yi ñoo mas kon yàlla na yàlla def jàmm Modou yow nag ñun ak yow samedi ak dimanche la bis doxut ci diggante bi mais mention spéciale moor Mbaye ndaanaan la mi ngi koy gérer. <laughs> jaajëf. Kër Mbaye Fall waaye ñëwul mi ngi daje keneen koo xamante ni. man su ma namee baabooy rek damay tapé turam moom ci internet bi mu génneel ma combat am booy Malika kaay nii géwél yóbbul booy Malika Fall namoon naa la torop waaye la waree barke sëñ Bamba fi la waree maa ngi wax onze billahi a seytaani rajim di nuyu képp ku toog ci salle bi di bëggee Sam ak promoteur bi di bëggee ñu toog fii di bëggee sama doomu nday bi la ziar di nuyu adversaire am ak gars yi fi toog yëpp champion bi ñëwul Issa teewul waaw Issa teewul dama ko yërëm ndax xamu lu tax bédeseen bi moo ñëw <laughs> yëngalkat bi Baye Modou. be seen bi moo ñëw. te le 20 bedde bi mooy ñëwaat. yow le lu gën a garaaw. xam a lan moo tax. instant bi nam ma dara. am lu tax nam ma dara. damay sant sama garant damay sant sama garant njaga ndax moo tax ma dara. waaw entraîné lekk ba suur tëdd nelaw. isaa bu kër mbay faal amul sens. laqatu daanu bu laqatoo daanu. bu feeñee daanu na teel a feeñ teel a nen nen yéex a nen nen déggoo de Malika moo mer. waaw te lamb day ñibbisi si Malika. lamb mooy ñibbisi si Malika par A ou par B. xam lu tax. lu dafa nekk sama ginnaaw. maa ngi nuyu président bi seexu naa ah. maa ngi nuyu waaw sama booy aziko yi bala maa woo. ana ñu ñoom ñu ngi fi. si ginnaaw waaw dama bëgg ñu yëngal tuuti. yëngal way ma dégg. tax lu ma doon def benn fukk laa koy def trois séances laay def avant maam komba ba ni may amee combat bu ñu jógee bu ñu paree fii dañuy dem kontaagaat hmm? lu leer laa la wax. léegi le vin day gaaw wala day yàgg. le vin day gaaw ci moom lay dépendre. xeex bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko. waaw damay woo waa Malika di woo waa Casamance waa Sindian maa leen woo baax kontaan naa ci teel a ñëw bi ñu teel ñëw di préparer combat bi. di sant waa war bu baax di sant sama yai yaay sop jokul di sant ñëpp di sant ñom grand Lamine jago ñi ci japp sama grand jaga wa nam ma dara ya tax nam ma dara grand Kino ma len wo ci combat bi monsieur le maire ma lay wo bu baax sama combat xama di wo bepp doomu Malika general Malika sama papa da mention spéciale kooku maa ngi koy sant bu baax di ko di bëggé wa Aziko bala maa bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa di leen wax nak lamb ji ku ku ku yéex ñew do am place nak Malika dafa am num soxla isa bu keur Mbay Fall lima lay yobante keur Mbay Fall maa la fa gëna a bokk dama lay baye Pa Mbay Fall bu baax xam nga lima la wax bu baax ya ngi may seetaan di nga ma gis nga toll ni ñay ma daan la nga toll ni fel ma daan la lu leer la la wax dego ma de Malika dafa dañu liggey wa ñi sante Lamine Diaw bu baax grand monsieur le monsieur le maire ñu koy wo ci combat bi ñom Badou Dia ñu ngi leen wo ci combat bi sama passar passar mo ñu téwal jonne war ñu koy sant bu baax di bëggé wa jonne war di leen wax ne lépp gis nañ ko di ñaanal sama doomu nday bi laser bi laser yalla nako yalla may ndam lu graw la lay inshallah rabbi ci katanu yalla ndax liggéey nañ ko di bëggé ñu fi téw ñop jaajëf kontaan nañ ci mom bu baaxa baax kokoy boy malika ndaanaan bi dañu dem ci benen combat bi mbokk yi Iba mécanicien moo mokoy bari ak camion attention il mécanicien un camion Le mécanicien va réparer le camion Voilà le camion qui est paan ci Il mécanicien faut pas le gueule samay yang waajur wajur, sama gaay ma daal laay pambay di sante pam mosi bu baax da sama yang samay combat di kau woo mu ñëw jàpp su ngoone diboo maa ngay satti ko gërëm bu baax aywa bëggee doom day ziar <laughs> fi la avant tout ngi bu baax ah. di julli ci yonente bi di sante suñu ñaari wajur di nuyu grand yi fi toog yëpp déggu ma daa wax ba pare kay ah di nuyu gaaraa fi toog yëpp ah di nuyu sama mbokk géwél yi sama mbokk saraxule ma leen di bëggee bu baax a baax. mécanicien bi ak kamiyon bi nu muy deme daf ma dépanné dama war a dem quoi a libéré. ah ñu boole xam nga lu ñu boole. turu mécanicien ak camion moo ñu boole. mais du sax maag moom ci làmbo yoo xam li ma la wax. kii damay dindi démarreur am yaa may dégg ah dindi maanaam électrovanam pousse ko du tax mu tàkk. Modou Mbaye kii amul doole jum dindee démarreur bi dafa diis gànn le le jour yi ngay comprendre yow. wóor na yàlla maa ko dàq bëre maa ko daax xeex. waaw. foo ko teg. dama ko teg fu kii rek xam nga nekk si ginnaaw ñoom jël bal ñu ragal ma xam nga yar ma moom may nekk xale ba tey maa ngi làmb ñaari rek laa xam. bëre ak ak ak métier ak métier. comprendre nga. mais mais mais lancer appel na nga ah, sama mbokku mbër yëpp. parce que lamb du wéy quoi man mi di wax ak yow ma ngi sama diplôme yu bëri mécanique général laay def ma ngi sama garage di liggéey suma may combat ma dem entraîné ji sama combat jàllee ma dem liggéey parce que xam nga mbeuri dañu sonu ci top ci ginaaw gaay di ñaan te ko la may tay bu suba nga ñew may la gannaaw soo boo ñëw da lay yapp comprendre nga ma ngi la sama mokku mbër yëpp na ñëpp di liggéey lamb yakul dara ci métier comprendre nga ma ngi bëggee ñëpp nak ki amul may wax ak mom bisbo rek ma japp ko daan ko defal yóbbuwaat ko fofu foo may yóbbu ki daa am doole ju ma yóbbu. yii mënu ma yóbbu garage garage laa jógee dépanné naa pare si kawam laa war a jaar jàll. Modou Mbaye incha allah. nu muy demee day gaa. sans dépense moom nee na moo dàq bëre. bëre bi muy woote maa ko dàq fop bu xeexee. waaw yow kii daa mën a xeex ak Modou Modou Mbaye xool waa ji. kii xamul lu xew. dijji dëgëru ko mën dijji dëgëru ko gën. mais yow yaa ngi ñàkk de. waaw nee aw ma doole nañ bàyyi bis ba. daa xorom. daa xorom daa xorom <laughs> xool ñu ko xool ko kii maa ngi dégg paa di wax depuis 2008. dafa juum paa bi waxul loolu. dalal rek ñu naan ñëpp. kii Modou Mbaye. voyage laa koy. bi lu mu wax. paa bi mais palmarès sam la doon wax rek di wax sama palmarès loolu dara. <laughs> waaw baax kon ñu woote. waaw woote wax ji ñu ngi bëgg ñibbi. waaw avant tout ah, maa ngi woo waa ginnaaw raay ah di woo 100 pour cent ginnaaw raay. 100 pigine bi xam nga ma wax du wo wa garage di wo sama mbokk mécanicien yëpp han ah. du wo gaa yëpp ma wo sama mbokk yi nak di wax di wo wa keur ëtt maam Caama Jeng du wo wa keur maam babu ci Camara xam nga du wo gaa yëpp ginaaw ray bayuma kenn boy nañ juk ñew jënd bi yi yéeg ci kaw gësam ma jàpp waaji daan ko jël wu reey du wo asan jallo han ah. Mbake Mbake xam nga ko kenn du ko wax han ah. ma lay wo jappal ci combat bi di wo gaa yëpp sama sëfër ma sor gaa yi ñew sama boy yi ma andal nak mention spéciale spesial di woo waa Gambie sama ñaari ceddo musa Moussa ak Diop maa leen xaar na ngeen ñëw jàpp ci baax baax mbamb day bàyyi xam nga ngi koy ñaanal bu baax yàlla bàyyi ko fi di woo gars yi yëpp bàyyi mu mbëri ginnaaw raay su ma limee damay juum équipe whatsapp yi ma bokk yi nekk ginnaaw raay nag gars yëpp ñëw jàpp ci ñu jàpp ci daan ko grand combat lañ soxla ñun ci duma wax sax wax nga mën waxal wax nga mën eh, bu ma daan la. Modou Mbaye maa ngi woo Pape Moussi Sall bu baax di ko ñaan mu jàpp si combat bi di woo maam góor ñëwal jëndal bloc yi ñu teel a dem stade ngoone Dibo jàpp ne maa ngi koy gërëm di ko sand ak jëkkëram ak waa Caaroy yëpp laay jaañ maa ngi koy gërëm di ka sant ak Pambay ma àndal di leen wax waa caaro yëpp mobilisé wu leen teel a ñëw ma defal waa ji affaire mécanicien mu dellu ci li mu mënee woon quoi. sama yaay sama yaay mu ngi ba Mauritanie ah yaay booy maa ngi lay ziar di la màggal mënu ma sama xol day tooy bëgg naa nga jàppal ma tànk yi maa ngi lay woo dimbal ma bëgg nga dimbali ma ci combat bi jàppal ma waa ma daan ko di woo waa Mauritanie yëpp di sant waa Mauritanie yëpp di ñoo ngi koy nuyu du nuyu Sénégal gépp Mamadou Mbaye ñoo ngi lay ziar yow tamit tubaarkàlla sama jarbaat lépp yow la yow kenn du yow jaajëf merci beaucoup kontaan naa. jaajëf kontaan nañ ci yow bu baax a baax Mor Mbaye waaw waaw tàccu leen ko bu baax a baax. léegi ñu dem ci grand combat bi akañ nañ def kon mbokk gars yi ñu dem ci combat bu mag bi wax na leen ko ñaari xale yi ñu tëgg ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk dafa am. particularité ci làmb ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk bi nga dugg see ci làmb yàggul fulla ak fayda nga ciy def loolu moo waral ñoom ñaar ñëpp ñu yegsi ci niveau bi ñu yegsi ci bi ñuy bëree seen ay moroom ñoo ci nekk di bëre mais ñoom ñaar ñooy bëre grand combat bi ko waral seen fulla la seen fayda seen xarañte ak seen ñeme ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañ alliance Birame ak Bulldozer Père Pambaay wax na ko léegi Bulldozer mooy xale bi nga xamante ne daaw moom moo jël tournoi des tout jeunes espoirs moom moo génn ci diggante ci kanamu ay moroomam Mbañi Kayre seraas booy Boy Bargny alliance biram bu ñëwee ci làmb moom ak mbooloowam bu bëree nga xam ni ndaanaan la fulla ak fayda moo nekk ci moom géwél yóbbul ma ñaari xale yi build builders there. di sant tamit ko xamanteni kenn nga si man Abdou Gahar ndjay fuma ma dugol si dugal na si goxam bu baax diko ko sant bu baax di sant promoteur yeb may sant promoteur yi tew fi yeb di sant mbogam tew fi du nuy wa Malika yëmbal Kër Massar Thiaroye ma ngi sant ñep monu Mbaye ki waxi nawetaan ngay wax fi kenn football fi de eh bisba arbitre day sifflé genn suñu digënté man ak yow billaahi billaahi maa la mën yow ñeme woo ma koo ñemewul doo ko daan avant tout damay nuyoo pare di wax onze billah bismillah na wóolu yàlla jërëjëfe Serigne Touba yàlla rek ay dëgg te mooy borom dëgg moom mi jox bamba dëgg ba tax mu daal di signé bamba ne wasalaamun xalal ma ni tabaxaludaa jërëjëfe Serigne Touba gannaaw bañ sante yàlla julli si yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di gërëm suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Basiru Fall alxuraan di gërëm suñu porte si kër Serigne Touba muy Serigne Maxtaar Mbacke Noreyni di gërëm maam Cheikh Fall ibnu Cheikh Ablaye borom yëmbal borom Malika di gërëm maam di gërëm Seydina Ousmane Mbacke Nourène di gërëm sëñ Mbacke Bousso sa xarit sa xaritu papa waaw sa koor sa kër la ñuy ndogo ànd ak Mbacke Balla ñëw di leen siyaare bu baax di wax kii daa kontaan rek mu ne mënoo ci ñoom dara kii moo xam nga yéen a ngi naan Bulldozer daa jël xaw ma galaa lan xoolee ñu Bulldozer bëreel ak ñu ma bëreel ba xam galaa boobu ak man ñi ma bëreel ñoo bokk Mour Mbaye maa ngi juum sànq si nuyoo bi maa ngi nuyu sëñ Abdoulaye Diop xaas ma ngay sant bu baax dafa ñaanal ki man Modou Mbaye yow xam nga sama yoon Modou yow sama yoon yow ñun ñëpp xam nga ñu mën na ne yeneen gaay sa papa mo ngeen xam mais ñun ñi suñu génération yow ya ñu xam xol man sama magam barki sayidina mohammed ma ci gëna metti yoon billaahi man ma ci gëna metti yoon huit combat la def sept victoire ben défaite Ki duma té téye Modou ki dafa juum hmm? ki dafa juum moo maa mom ku gëna metti yoon yéen ñaar ñëpp ay ndaanaan non non am waxuma lay ndaanaan lañ de yow waxal nee na yow xam nga yoon yi ñu def yéen ñaar ñëpp seetaan non waxal rek moo ko gën a métti yoon yéen ñaar ñëpp yéen ñaar ñëpp a métti yoon siñor ndaanaan nga maa daan wóor jàmbaar maa daan doomu bay laa maa daan booy jéey bu benn baraag mbooloo maa daan booy caaro maa daan nu mu tuddati fàtte naa ko sax kan laa daanaat <laughs> asib bu golf gaynde moo man daanuma ko ndaw bër musuma bëre ku ma tollool kii bu taxee naan daa metti yoon ay booy bàcc seeraas ay mbañi kay rek kii waruñu woon sax bëri Modou Mbaye sama combat bu mujj da nga koo fàtte sama combat bu mujj bii passé man ak Paul yaa non Paul moo gën a diis moo gën a diis booy yëpp te biir gaaxe dama gën a duma daanu ngeen kii ramb moo ñu boogee nii rek baat ki yàgga man ak moom ki daa ko bëggee daa ko xeex ëpp supporter gën see am jabu géew yàlla na ko yàgga may ndax waaw amin bu dee ko ëpp doole ku daa ko bëre ku ëpp mbooloo barke si xëy na ñii di wax nii xam nañ mais moom yabuma kii bu ñu daje woon si mbedd mën na ko jaara fi mu jaar fa ñun soreewuñ xamante nañ bu baax yow yaboo ma wallaahi azim yaboo ma Modou Mbaye damaa yaakaar ne sa moromu góor yàlla ëppoo ko sudoo ko nga taxaw naan koy buñ dajee man ak yow buñ jaaree fen loolu xaj nga koy wax xaj xaj nga naan kay eh jaaral nii mu dem mais dinaa la xamal yow la dinaa la wax benn affaire bis ba billaahi dama koy duma dama ngay duma combat bi combat amateur bi Modou Mbaye man loolu sax damay neex pour ñu duma ma nii loolu damay neex quoi xam nga ba ma dalee bërëb bëgg naa nga duma ma ngir yàlla kaay duma ma léegi neex ba deful man musuma wax signature boo xamante ni def ma ko waaw wooteel waaw avant tout maa ngi woo waa yëmbal tegi magee waa bun waa benn bagage oma seen fay maa ngi woo monsieur le maire de yëmbal Daouda Ndiaye maa ngi koy woo di woo Diop Daaro waaw maa ngi woo waa yëmbal daal ñëpp maa ngeen di wo di wo waa tamit monsieur le maire bu Malika maa ngi sama papa Ndiogu saw suma xarit suma mak suma papa suma lepp kooku kooku man sama lepp ga maa nuyu di sante diko di sama papa Libaas mbay xam nga badu Dia momadou Ba Bakary gajaga sama boy yi may andal ñepp wa Bayal ba wa Malika surtout Sonatel montagne Malika pagas wa Corosement Malika ñëpp maa ngeen di wo ci bis bi di wo wa keur massa bu baax wa Yëmbal tegg suñu papa na Diop suñu papa Thierno na ñu ngi koy woo bu baax responsable politique APR gis nañ ni mu ñuy jàppale wax dëgg saa suñu combat passé promoteur yi ñooy seere lépp moom la woon Thierno Diop moo jënd bi yëpp sama combat passé te gëm naa ne bii mooy raw di woo Gana mbay suñu meer maire Gana Mbaye maire Bambey maa ngi koy woo bu baax amaana tey jii sax la waxoon ma ñëw fa waaw mais signature moo tax mu ma faa dem di nga xamal monsieur le xëy na suba ñu amee temps dinañ ñëw ba Bambey sa combat gis nañ lu ñuy jàppale moo xam lu mu bëgg yàlla na ko suñ borom defar di woo Modou Mbène Diop suñu grand Modou Mbène Diop ñu ngi koy woo bu baax a baax di ko wax am nañ ay problème bu parce que am nañ ñu buggu bëgg. si bi di leen jaajëfal ci taamu gi ngeen taamu woon télé bi mu leen di jaajëfal mu leen di bëggeewaat bu baaxa baax jërë ngeen jëf bala fin